ayca mu ngoog Habib daal nay teew ñu fas ne waxtaan ak korite geeg li fi gën a fës caat ca bismillah. waa asu nuyuwaat euh, waa banlieue bi comme ni ñu koy defee saa su nekk banlieue ci laa bokk euh, képp ku fay yeewoo rek ah rawatina itam ci guddi gi ñu jóge ñu ci ñaanal ñëpp. yàlla yàlla tamit nangu suñu ñaan yëpp. yàlla antu lépp surtout projet yi ñu nekk. Euh, mu nekk artisan yi nga xamante ne jamono ji ñi ngi waajal li nga xam ne moo di korité yi moo xam ma ñoom tailleur yi la moo xam tamit ñii di uude yi dem nañ seeti leen wax nañ aussi tamit nan lañ koy waajalee ak i jafe-jafe yi nga xamante nit tey ñi ngi koy dund mais uude yi seetlu nañ ñoom ñoo ci gën a sonn ndax tamit ñoom euh, frontières yi moom moo leen sonal ndax mënu guñu exporter li nga xamante ni moo di seen marchandise yi ba tax na jamono ji daal euh, ni ñuy waajalee korité gi metti na lool ci ñoom jërëjëf Habib li muy métti métti ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ba génnee ay mbir yu bees moo xam ci daal la wala bokk ci yére ku ci nekk daal li saytee mooy ka nga xam ne dafa ñëw ci yow jox la xaalisam bu bésu korite ga mu sañsee ba anam yi mu gën a rafetee waaye li ñuy sañseel nit ñi muy rafet rafet ay jafe-jafe la ñuy dund rawatina ci coordonnées yooyu ndax Covid bi tax na amul lenn loo xamante ni si ci marchandise mën nañ ko yëkkati jëmale ko bi biti réew yenn saay lool di gàllankoor seen liggéey dañuy ànd ak ci gëstu bi Habib Faye moo di Diop ci caméra bi ci banlieue dakaroise ngir waajal lii di korité gi doon na loo xamante nit ñu ne ñoom jafe na lool donte sax client yi ñu ngi ñëw tuuti. rek ba ay xëyaatee nekk ci. Mm-hmm. moo tax ñu daal di ñëw ay prêt à rek te léeg mu bëgg jëndoo natt ko jënd ko mooy que daal. moom mi ab tailleur la la ko gën a soxal bokk na ci ndaw ña nga xam ne ña ngay liggéey fii wàllum xëyug ndaw ñi lu ko soxal la. waaw dëgg la wàllu boutique moom dëgg yàlla ñu takkoo takkoo takkoo ñoo fi liggéey aussi tamit suñu maire bëgg naa gars tamit képp kuy doomu Pikine ñu ñëw jàpp si ndax aussi tamit képp imagine lu toll ak presque quinze personnes yoo xam ne ay doomu Pikine la di liggéeyee si benn place kooku laaj na soutien laaj na jàppale aussi tamit. mbébétam moo di mu enrôlé ñu bëri ci ay ndaw fii ci diwaanu pikin lépp mooy bépp doomu Pikine kuy jël lu Tamba day ñëw fii nii wàllu couture jël la récupérer la jàngal le métier bu ëllëgee na mën a teral say waajur man objectif yëpp loolu la du man. waaye loolee la ko teree moo di jafe-jafe yu yii. bëgg nañ bëgg nañ ñu ñawlu mais amuñu xaalis ñu bu baax ay prix yu tànn la ñuy jël la yoo xam ne tey yow boo buñ la fayee loolu boo jëndee gànt jël li nga war a jël yëpp ay tuure ci mais mooy gën neen daal. waaw mooy gën neen. métti na euh, yi gaa bari nañ moom nit ñi place moom yàlla ngi ciy def sutura xam rek gën a xam ay ndaw la ñu ngi góorgóorlu rek yàlla baax na ci client am ñoo xam te ne te da ngay yar rek. Mbow Ngalla uude la ba mbas mi duggee ba léegi jafe na ngir rek moom lu mu yóbbu këram. ba léegi kay dara ndax ata ñii ni daal feer ba amee ba tey Europe bu ñoo tere foire yëpp kenn jaayul dara dara atelier mode yëpp dama ko def bi fi ñëw tey moo tax ma mujj defal daal yi léeg nga jaay ko te doo ko dara léegi daal feebar moom mooy li waral dëgg dëgg dëgg dëgg kinaa yi soo ko si dara doxul boo fekkoon léegi ñu daana fekk kinaa yi dox di génn waaye gisuñ suñu bopp surtout ñi nga xam ne ak tubaab ñooñu faral jënd suñu marchandise yi bu bu tubaab ñëw rek du dañuy long jamono ji artisan yi nekk biir Pikine ñu ci bëri ñu ngay yuuxu wàllooy ndax la ko waral moo di mbas ba nga xamante ne ma ngi fi wuude yi ñoom xamatuñu fa ñuy taxaw tailleur yi client ya nga xamante nit la ñuy jànkonteel ñu ci bëri jafe-jafek jamono dab na leen ba tax na seen i loxo dajatut seen i ginnaaw fi mu nekk nii ñu ne dañuy dundee yaakaar ci Aïcha Habib jërëjëf mu nekk gëstu bu am solo ñu jaar fa nuyu waa wàllu couture ak ñëpp ñoo xamante ni si dañoo nekk ci euh, gëstu bi di def seen kéemtalaay kàttan ngir daan seen doole waaye tamit fexe bégal askan wi Habib nga ne lan moo xew li grand bourba sol moo moo génn ren. waa parce que tenue yu rafet la. Mhm. lii moom costume africain la gars yi bëgg nañ ko loolu moo di tissu fil yi lañ koy ñëw. Mhm. waaw parce que c'est trop classe tamit ah. parce que man tamit ci laa laal. <laughs> kon daal dafa mel ne yéen daal waa banlieue déggoo ngeen ko ngeen ngeen. ñun nga xam ne ci lañ bokk nangu leen ñoo jox te aussi mën na dem fu ne. ñun tam lañ bokk de ah. ci ngeen bokk moom <laughs> nekk lu am solo asu mais wax dëgg yàlla tailleur yi surtout banlieue artisan yi bëri nañ fi mais mas mi jaaroon na fi peut-être Habib suñu mënoon a xam ñoom daaw. 2020 bi ak 2021 bi ndax am na différence. waa Pafara am na différence bu bëri ah ndax tamit boo seetee ñoom daaw dañu leen tëjoon te dañ leen limité woon dafa amoon heure yoo xamante ne moom lañ doon liggéey heure yoo xamante ne moom lañ doon wàcc ndax tamit boo seetee année bi ñu génn muy 2020 métti woon na lool ci képp kuy liggéey ñoom tailleur yi nag ñoo ci gënoon métti leen ndax ñoom euh, seeni seeni ñaw ñoom seen métier sax les métiers du dimanche euh, la tudd ndax boo seetee euh, événement la ñuy liggéeyal. Euh, tey aujourd'hui ñu ne da ngeen di tëj li nga xam ne moo di seeni atelier te ñoom ñu tàmm di fanaan da doon xaw a metti ci ñoom ngir ñu am lenn li nga xamante yóbbu nañ ko seen kër yi mm. mais ren nee nañ commencé nañoo noyuwaat bu baax ndax boo seetee amatul benn mesure de restriction bi nga xamante ne ni tey euh, teg nañ ko ci biir euh, réew mi ba tax na clients yi aussi tamit ñoom ñu ngi ñëw di def seen commande waaye tamit teew parfois tamit dinañ am quelques difficultés ñuy rencontrer waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, justement difficulté yooyu sax yan xeetu Euh, difficulté la ñuy faral di dajal. boo seetee ci biir euh, difficulté yi jaaw euh, moo di client yi parce que. tey pour ñu am lu ñuy fayee dafay xaw a métti parce que ñoom nee na dóor dàkk bi moom moo leen xaw a sonal am na ñoo xamante ne seen loxo daju seen ginnaaw benn yoon loolu tamit doon na loo xam ne tey sonal na leen beneen bi moom mooy ñoom personnel bi nga xamante ne yor nañu ko ngir ñu mën leen euh, jox la nga xamante ne moom la ñu yóbbu seen kër yi tamit euh, beneen la ci ay problème am na ci kenn ku ne sax faaw rek nga mën a xam nan ngay communiquer ak ñoom ngir nga mën ci gën a génn waaye tamit loolee kese doonul loo xamante nit euh, lu doy ndax client ku ci nekk nekk ak humeur bi nga xamante ni te moom ngay ñëwee rax si dolli itam comme que ñoom dañu jóge ci benn situation boo xamante ni te metti woon na lool ci wàllum koom ci ñoom euh, tey ji gisuñu kenn ki nga xamante ne jàppale nañ leen donte sax tamit am nañ ay projets yoo xamante ni des projets de développement la mais malheureusement gisaguñu koo xamante ni tey euh, mën na leen ci financer ba nga xamante ni te lépp dina mën a law ñu ngi yi ngir jox nit ñi seen i ñëw bala ñoo julli ji. bëgg nañu ko ndax boo seetee ñu ci bëri sax euh, ñoom nee nañ euh, tëj nañ arrêté nañ di jël li nga xamante ne te moo di commande ndax euh, bu korité gi desee fukki fan rek ñoom da ngay gis ñu ne arrêté nañ di commande yi ci la ñuy commencé di def li nga xamante ne te moo di veille nocturne di commencé di fanaan ngir mën a ñaw lii waaye itam parfois mu am quelque difficultés ndax tamit am na ci yenn ci ay tailleur yi nga xamante ni tamit ñun ñëpp boo oytuwul mus nañoo daal dañuy ñëw ne la ñëwal lundi bu lundi da ngay door daake boobu oo moytuwul sax euh, bu ñu karité ba pare ngay doog a jot sa tiis bu boobaa te ren euh, li ci gën a yéeme moom mooy korité gi xale yi ñoom ñu ci ëpp ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñawlu ndax mag ñi nga xamante ni euh, tey fekk nañ leen ci place koo ci gis rek mi ngi accompagner ki nga xam ne moo di doomam mm-hmm. wala tamit doom ji mi ngi jël mesure mu mel ni ren cette année fête bi doonul fête boo xamante ni mag ñi jël nañ ko wala boo korité ñoom tailleur yi li ñu lay wax sax moom mooy korité feetu xale yi la du feetu mag ñi moom moo waral tiss yu gën a oyof euh, te it xale yi tamit ñoom ñoo ëpp lu ñu koy ñëw xanaa ñenn ñi mel ni man ñoom ñoo jël euh, tinu gi simple yi nii pour rek euh, mën a am lu bee eh, ah, <laughs> parce que quand même gars mm. ah, yi sont devenus beaucoup plus professionnels mm. et puis concurrence banque bi ku fi nekk ñu jox la ñamal koy tàndeel seen sa moroomam effectivement ndax boo seetee Chérif Pikine Tali bees da ngay gis benn rangée boo xamante ne ni diggante premier deuxième robinet euh, ba jàpp troisième robinet mën nga compter lu mat dix ci ay tailleur yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn alignement boo seetee ndaw si mi ngi naan loolu tamit ci seen jafe-jafe la waaye teewul nit ku ci nekk tamit sa wërsëg rek nga mën a lekk daal njëg gi nag waaw njëg yi moom méttiwul ndax tamit euh, tissu yu wax dëgg yàlla saa dépend tamit ci tailleur yi am na si tailleur yoo xamante ni ñoom ils sont spécialisés di ñaw li nga xam ne moo di costume africain am na si ñoo xamante ni tamit ay ay ay roy dàq lañ ndax tamit dañuy gis mu rafet kenn ñëw jox leen ko te it dañ koy engagé rek ñaw ko mais tamit njëg li euh, boo seetee cherul ndax tamit tissu bi ci boppam moom moo cherul bu bëree ba bëri 2500 la mètre bi te d'habitude li ñu koy gën a amee moo di 2000 euh, 2000 euh, francs à chaque fois. waaw ah, yenn saa yi nga am 2500 mètre waaye tamit par kilo day jaay de Habib. boobu boobu boobu a yomb de. boobu peese bi la te peese bi ñu koy ëpp ñi koy utiliser astu moo di xale xale jigéen ñoo ëpp li ñuy jël euh, lii di PC bi mais tamit euh, ren bu fekkee ne ci côté jigéen ñi euh, Val Boroda bi daal moom moo nekk en vogue actuellement. <laughs> yaa ma ko yëgal waaw gëstu gëstu métti sax laa ci nekkoon ci biir marché bi. ah da nga cee <laughs> du ma ci tontu. <laughs> mi ngi noonu Habib <laughs> merci beaucoup merci beaucoup euh, defe naa ne gëstu bi am na solo ñoom ñëpp pare nañu pour euh, joxe ay ñaw yi wala am na lu leen dese ba tey ci stop. waaw des na nee nañ des nañ am na ci koo xamante ne moom nee na ma bu. korité gi desee ñaari fan moom ci li muy consacré moo di ñaw ñi nga xam ne moo di njabootam ak tamit apprenti yi nga xamante nit ñi ngi ci biir atelier bi mu xool nan la leen di ñëwalee waaye moom bu desee deux jours amatul benn client boo xam ne incha allah dina ko desel li di ñëw commencé nañ daal di livrer ndax da gis kenn koo xam ne ni moom moo féete ci wàllum passé bi boo ñëwee dina la passel sa yére ba mu tàlli paquetel la jox la nga dem ñeneen ñi nekk ci coupe bi ñi nekk ci coupure bi ba nga xamante ne nii daal ensemble bi dina mën a rafet te dina yànj ba ku ci nekk daal bés bi incha allah dinañ ko gën a mën a yànjal astu ñaw pare na. waaw ñaw alhamdulilah daal pare na. Serigne Cheikh. ah man ak yow <laughs> grand bour ba non grand bour ba moom day daaji ci paquet bu bees sàq lay def. <laughs> non ci na xalaatu redoublé. Ah, taalibe yi indi addiya jox wala wala nga def bi nga kii woon àjjuma rek defaat. defaat ñetti ji ñetti ñetti xob yi. Ah, de mën na woo ko su ci yóbbu boo ko waaye gisoon nañ ci pierre de. <laughs> ren moom defe naa ne 2021 bii kenn dootu fi woo ko sotti ci biir plateau. wala ñu indi ma ko ci bi ndax pierre moo tax sol na day sol ndaalaat pierre. mi ngi noonu fara fara loo fas yéene. waaw sama xaritu tailleur yi rek macha allah jox na ma yëre bu bees. bu ah, rafet bu yàggee mu nuru ay <laughs> dóor de. <laughs> <laughs> non Malick Koundaw boo fa demee di nga am lu bëri di nga am lu bëri foofu moom ay 313 mètres yu jëm nañ lay jox nga yóbbaale. merci beaucoup Pape Fara nee na moom mu ngi xaar xaritu tailleur mi macha def na dara ñeneen dinañ ci topp. non ñëw nañ ba pare ah. jox nañ ma wax dëgg yàlla yëre bu rafet. dëgg yàlla mu ngi noonu daal ah, mu ngi noonu moom kenn mënu ci dara merci beaucoup Pape Fara merci beaucoup Habib ñu fas yéenee xuus léegi léegi ci rubrique politique mu yóbbu ñu Moussa Omar Gueye ca Tamba.